sëriñ bi mi ngi sàkku si yow nga yegg si fii si jàkk yi ñu àndandoo taxawu alxuraan ci wàllu xewlu ndekki yi noonee la sëriñ bi joxe ndigal bi sëriñ bi joxe na ndigal ñu yegg si bu ñu yegsee ñu mën a taxawu loolu ñu yor jukki alxuraan bu mënee génn ci euh, mbaar mi doxal ci xasida yi kenn bañ neenal jataay bi ñu dox ci moo ci ëpp doole te ni ko sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa jàngale weer bi sallallahu alayhi wa nga xam ne ni yonent bi gënee yeneen yonent yi cent vingt quatre mille prophètes yi noonu la weer bi gënee yeneen jariñu moo tax mu doxale ko noonu mbooleem yeneen jaamu yàlla yi boo ci def day laaj ak sell yëgale li may nga xamante ni am na loolu da koo doon tey kon Mbacke ñu lay beral gàmm sëriñ bi ak la war ay la ay sax la war a di la nuyu surtout njaboot yi yow bu la tëdd te ñaan suñu borom bu gis ci laa doon ci yëgale la yàlla na ko suñu borom yàq ci yow ak sa njaboot yi sa yéene bu mottali ndax lu ñu guddal ndax da ngay bëgg lu ñu dara nga xam ne ko àndal commission culturelle bi ñoom dañu wéy ak mbokk taal bi ñu tàmbali li mu am ak xasida ndax programme bi day continuer ci alxabar ak xasida bu ko defee bu ñu demee ba installé lu ñu amee ba noppi bu ñu ñëwaat ñu wéyal ko loolu lañ koy desee ñu dundaloon guddi gi donc yëpp ñu fas yéene ko yelloo tey incha allah kon bisimilah ñu teewlu ñu ñaanal képp ku nekk ñu déglu suñu kàddu ñu teewlu si naaw suñu jàngale kàddu yi ñu fasaale si ñaanal ci liggéey bi waaye itam ñaar ñi fi ñu tudd tamit moo tax dëgg fi bu doon daal di moytu suñu borom yokk ay darajaam ci maxaar bi te sant nañ ko dara bi ginnaaw ci la ci suñu borom suñu kàddu bëri di ñaanal ko daal bëri bi yéen bu dee bi wax ngir liggéeyal chanson ngir liggéeyal portable ngir liggéeyal seen tuba waaye ngir liggéeyal seen yàlla ko suñu borom jàppale lépp dama ko suñu borom jot kon ñu sàkk ñëpp ñu teewlu incha allah